koorug gay moolum géej o xaaj ibrahim gay koor gaa ngi xëccu jëm ci jeex bu jullit ñi làqee ay fan benn fan te ko day jéem naam yéene yéene gu sell dugg ci koor gi ak cawarte waaye laata dog di jot kooram gi daldi dog o DG tey nag caaxaan faaxe woor gu yegg la fas xéene seytaane sori ko naafile ga jaaru ci mooy ko daloon démb dal ko DG waaye nànk rek comme xel mi day xelli mu déggoon benn bàkk fàttali ko ko teg fem wees dal naa ci démb maa ngi doon jàmmalante ak Abdoulaye Diagne njool xodd ba koy tooñ naan ko naka koor gi mu ne ba sa semp xëdd tëdd yeewu ndogu maa ngi doog a dégg <laughs> Baara <laughs> Kërës am na stratégie bu bees. waxtu naa fi la jot. mu yem ca kër ga. këpp këppal quelque rakka. te kurusam. tudd borom bi. teg fa lépp. te portable am. di connecté rek. nar for bët. jóg doxantu. Xaaj Ibrahim Gueye. naxasaale na. ba fajar jot. technique boy town yi. la fas yéene teg. xëdd tëdd. yeewu ndogu. DG. préparé xëddam bu bakkane. la mu nas waxtaan na ceeg madame. Buka ko kan kenn yee daa xëdd ba biir bi fees tepp dal di forbët oh gay yi moolum géej nelaw nelaw yu diis ay waxtu rek mu dégg gor ko allahu akbar allahu akbar oh DG <laughs> ne alhamdulillah comme yorul montre te ay portable am yépp oh. daf ko fayoon teel na ko taal commande ba ca wetam télé baa gën gaaw naka mu rek fekk waa nekk ci naafila ga dg <laughs> ëppal baaxul dog nañ bu yàgg bay naafila dg teeyut tàndarma ba tege woon ak ngato ba xaaj ibrahim ne ko tëndiix ca la wax lile allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu o dg dal di dog ko boole ko ki siiñ taal téléphone am madame madame Gaye dal di dikk seeteet <laughs> ya degg ndigal quoi ah, mais bul ma yee ba dog jot mais dog ngeen bay naa fi la tay te yeewuma mais madame xanaa da nga bëggoon rey madam gay, xaaj Ibrahima dogu lan xanaa ma montre deux heures a jot di o oh, DG ñaar xamut waaye mom xam na ca la ne madame waa demal <laughs> yàqooti naa madame Guèye lu xew DG <laughs> jàmm rek donte du jàmm waaye dañ kumba da xaraam demal demal